départage bëf fii si fa oy ah. ku moom boobu. boobu Cheikh bi nag. macha allah macha oh Cheikh moytul. waaw Cheikh yëngal nga fii de. doomu Joof yor si biir fa oy. mel ni doomu fa oy la. public beeg yëpp ñoom mooy allah. Ah, looy wax si loolu. kontaan rek. Mm. Faoy moom sama dëkk la. Mm. ndaxte sama yaay fii la dëkk. Ah. kon man fii laa dëkk. dëgg la kay waaw kontaan ci waa Faoy tamit ndaxte ñoom gis naa seen waaye rafet na trop. Mm-hmm. lu ñu namm seen lamb tamit yàlla na leen yàlla ko defal waaw liñ ci séntu rek yàlla ñu am ko tamit sa liggéey bi rafet na jaar na yoon liñ ci séntu tamit yàlla nga am ko waaw nag ñu ne sa mbokk séeréer waaw moo gid ma fop i ga am ne de ngeenoo taxam a roogo a ndam taxam deg fa yàlla surtout ma FC Levement ka waaga moom jegim tamit den ka mbiya na mi ten feleeru nda ino saɗakino xa côté laadne de moƴu maɓɓe iyo rooga bi moy premier drapeau bi wala non non bi nag bi nag bi si saison bi si saison bi waaw bonne continuation jaajëf ndebo maak nuyul ma koli waya wala nga joxal ma ko bi waaw nagu ndebo maaka ngi noonu bu joof yoor e technique technique daa mel barki yaa jël ngunjaande démb ak fan moo amoon bul toog jooyin bul ni semaine semaine bi neex na ci yow de décembre bi. waaw gis nga ah. Ah. tey nga ñëw fa oy dajeeg say naataango. bëree ba ba ba final jël làmb ji lan ngay wax. xanaa kontaan ci waa Faoy rek. Mm-hmm. di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. Mm-hmm. man damay lambatu rek di dem. waaw maa ngi leen di nuyu daal di leen sant di leen ñaanal jàmm. waaw di sant waa Ngunjaan yëpp. ndax fu may toll ñoo may jàppale daal. waaw. dëgg it usine kanam gi xoosu na ak doole de usine est-ce noppalu ji. non kanam gi déedéet noppalu fan. Ah. déedéet bàyyil ma raam rek ba kanam. ba kanam daal. waaw si nag bi. ah nag bi baax na wala baax na kon baax na. Ah. Ah? ah kon baax na bonne continuation. jërëjëf. guy gi Jilaas. Jilaas. Djilass bëre bu rëy bi combat gaaw yi li ma naqari tey sa combat yi est am bari na. Ah, waaw euh, bariwul de da ngaa gaaw bu ñu siflee balaa ñoo gëstu jël am nu ah. eh, eh, eh, ma laal de Djilass. looy wax ah. am sa benn nag noonu. dem ñibbi Djilass nii. ren ana drapeau yi. ah. jël ñaata. benn rek laa si jël. benn rek ñaata nga daan ah bonne continuation rek. Eh, jaajëf. waaw ah, waaw tout droit Djilass le 31 tamit foofu am na nag ak 50 mille waaw sargal Madou Mbigane aha garage bi ñoo ko organisé bu leen ko fàtte noonu la demee. fii de moroon moroon moroon ëpp ëpp xëccal ma xool aca aca nagu kii bu ma laal waay grand Ibrahima waaw boo ma mënee ñëwalaat rek si as taxawel eh, eh, nii si association bi tëgg làmb ji loo may bon association bi euh, association des jeunes pour l'émergence de Khowe mhm. moo doon tëgg làmb mu doon jeex ñaari la woon mhm. donc mu tegoon ak euh, cent vingt cinq mille mhm. bi mu nekkoon euh, kii nag euh, ak soixante quinze euh, mille. waaw lu mu dégg ñaari nag ak cinquante mille cinquante mille donc gis na bëri nañ ko ci jàmm jeex na ci jàmm waaw gars yi jël nañ nag yi jox nañ leen ko. Mm-hmm. donc euh, ah, xam naa ne je crois que suñu jaan wàcc na. waaw ah. ay dëgg it. waaw kon ñu xaar déwén wala si biir saison bi mën nañoo xaar beneen journée. bon euh, déwén incha allah. déwén incha allah incha allah. Ah, ak doole. waaw ñëwaat ak doole daaw benn nag lañ tego mm-hmm. ñu teg ñetti nag. Uh-huh. donc ñaan yàlla ñëwaat aussi ak doole. ak doole waaw bu déwénee yàlla nekk ay diis rek. waaw El Hadj. naa la. laa Lyon ñu ngi tey ma ñëw sa dëkk. waaw tey fekk leen fii ñu ni association l'émergence pour la pour fo ay tey ngeen ñëw te daaw benn nag ni ko grand Ibrahima waxee ah, ren ñetti nag tey fan ngeen jëm ak lan nga ñuy wax ci journée bi ak deux jours yi métti naa méttiwul vraiment métti woon na mhm. waaye defe naa mbooloo moom mhm. kenn ku ne bu jàppee rek mhm. mu jëntal ba day oyof eh, te defe naa association bi da di association boo xam ne eh, xale yi dañoo déggoo di xàccandoo di dóorandoo loolu moo tax daaw ñu commencé ko benn nag ren ñu teg ñetti nag mhm. defe naa ñu ngi ñaan yàlla mhm. mu gën a dem kanam mhm. waaw di woo ñëpp rek di leen wax ne association sportive et culturelle de du association boo xamante ne ci football rek la yëngu côté culture bi dañ ko bàyyi alors que ci la bokk culture bi moom la ñu am làmb ji moom la mooy numéro un Sénégal vraiment war nañu association yi nañu dugg ci euh, làmb yi nañu dugg ci cosaan bi nañ génne culture séeréer voilà loolu rek laa ci buggoon a wax ASC yi ñu bàyyi di topp football bi kese kese am ne football day yóbbu rek du andi alors que làmb facteur de développement mhm. euh, li feeñ fi tey wone na ko mhm. vraiment Mm-hmm. kontaan nañu bu baax a baax seen taxawaay. Mm-hmm. Ah, surtout la Lyon. Mm-hmm. Ah, ci suba ba léegi yaa ngi fi. ñeneen ñee sit yi tamit ñu ngi leen di bégee bu baax a baax. jërëjëf El noonu borom fooy.